immane ndewoy euh, dimanche bi ñu génn ci bu am bu rëy defee amoon ñu para coow li bëri muy diggante Papa Sow ak ki nga xam te mooy Siteu en tant que technicien wala bokk en tant que ki nga xam te bi euh, noo gisee ki nga xam ne mooy euh, Siteu Papa Sow di profité rek di encouragé ki nga xam ne mooy Papa saw di ko xamal ni ko làmb noonu la bi fi nekkee ci biir làmb ba léegi mosu fay def lu nga xam te bi bii lu ñaaw la wala wala bokk lu nga xam te ne ku ko gis doo am li nga xam te ne mooy loola neex ci si tamit ñu ngi koy félicité di ko xamal ne ko tamit làmb noon la noo gisee combat boobu. waaw avant tout damay félicité euh, kii nga xamante mooy Siteu. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla ndam bi yàlla na ko jikk di encouragé Papa Sow. Mm-hmm. Euh, di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam. mu ànd ak wér ak wérle. Mm-hmm. bon man d'accord ma nag ci benn côté bi. Euh, parce que Papa Sow champion la. champion te dese na ci làmb mm-hmm. ak ak nu mu mënti demee rek. Mm-hmm. warul mën a bàyyi làmb ji. waaw mu am ndàmb woo. mu mm-hmm. ñàkk ko man dama bëgg ay ay nitam. waa këram nañ wax moom parce que tey am na ay moromam yu ne ci biir làmb ji. ñoo xamante dañoo tegle ay plus de quatre ou cinq défaites. mais est-ce que effet bi moo posé la je pas xaw ma nag. mais man su ma sañoon man du bàyyi. waaw mu mu am na am na am na ñu fi war a mën a bëri la. wallaay te Papa Sow bon. day neexal làmb quoi. wallaay day neexal làmb. man nag vraiment nag man ba ma gisee ne def na sortie bi bon. daf ma tuf ma touché nag parce que man bu ma sañoon mu continué ba ci kanam. waaw mu continué ba ci kanam quoi. parce que am na ñu nekk ci làmb ji ñoo ko mag foofu te ñu ngi bëre ba léegi. waaw. Euh, boo seetaanee combat bi. ci yenn heure la même bu fekkee ne sax dafa am lu ko dal. Euh, nit ku feebar da ngay ak lu ko mënti dal. yaa ngi dégg. dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla wéral. mu ñëwaat ci làmb ji. waaw. Euh, boo seetaanee combat bi ci yenn heure la nga jàpp ni kat la def ba perte combat mag Siteu. xaar bi. waaw waaw waru en ak ak taay bi mu yor noonu mm-hmm. distance bu may site c'était pas normal mu may ko distance boobu boo yoree boo yoree benn taay bi ni mm-hmm. barbit bi ne prix mm-hmm. boo ko une deux minutes trois minutes war nga marqué ben pas xaar loxom jóg parce que àla kulli al Siteu loxoom dina jóg bu joxe nga daw bëreeg mom kon combat rapproché la waroon bëreeg mom waaw c'était pas combat distance combat distance bi moom foofu moom moo. xaw ma kan mo ko digal combat distance boobu non mais c'était pas normal. du du mbër dooyor taay bu mel noonu peut ngay am ngay am. Euh, combat distance boobu non non non. noo gisee c'était ñu ñëw ci lamb yagul mais macha wa waaw man Siteu man je l'estime beaucoup hein. parce que tay ci ben côté bi euh, xalé la bo xamné ne bu jambaré la. xalé bu bëgg lu muy def ba paré teg ci tamit. man euh, dafa ci côté bu ma koy bu ma ko nawee. Mm-hmm. moom mooy ci côté sociale waaw social bi. Mm-hmm. da ngay xool ni boo xoolee Siteu buy communiquer euh, mu ngi wax ak borom bopp yi. xaw ma ndaxam gars yi ñu ngi ciy bàyyi xel wala déet maanaam gouvernement bi nañu xool Siteu fu muy waxee. Mm-hmm. fan yii paas dégg naa ko sama papa Ngagne Diagne ko wax. te il a parfaitement raison. nañu xool Siteu fu muy waxee. maanaam nañu dimbali jeunesse bi te wax na dëgg. jeunesse bi lu am importance surtout bu démé bay guéné xalissam di jënd ay ay ay ay ay tiak tiak xamal ay moto pour ay moto ay moto pompe yoy yëpp il faut il faut gouvernement bi gestu ko ñu xam bu baax fi xalé bi di waxé yaa ngi dégg ñun buñ ci lancé wul message mom mu ngi ci lancé message te bu ci lancé message mu ngi mel ñun ñong ci lancé message parce que mbeur la comme ñun té ñun ñoy ay magam kon donc mom communiquer bi muy communiquer ni war nañu ñun tamit war nañ ñu wax ak jeunesse bi war nañu jàppale jeunesse bi te man ci loolu laa ko nawee man bu ma ko bu ma ko sentiree rek ci act yooyu muy def noonu moo tax ma sentir ko ba tax na fan yii ci ci ginnaaw wax naa ko ci benn ak ci Lamine may naa ko man man su ma doon may su may su may maye sens moom laa yéene pour may ko parce que dafa xam nu muy communique ak ay magam. du dépasser kenn. kenn wax bu muy wax bu la ko waxee pare yow da koy dégg. nga xam ne kii xale bu ñu yar la bu làmb jotee dina ko neexal bu signaati face à face jotee dina ko neexal mais bu paree dina la delloo cër bi xoolal ba combat papa Sow bi jeexee. mu ne ko man dama la rusa sax xool nga xam ne kii nit la. mais dafa am ñoo xamante ne maanaam bu ñu waxee jaan yi bu ñu jaaree nii rek doo doo am sax envie jaar yoon boobu noonu. moo tax Siteu daal yal na ko yàlla taxaw. Mhm. yàlla jàppale ko ba lu muy séntu ci jeunesse bi. Mhm. yàlla na ko yàlla defal. vraiment man moment mhm. bon awma dara lu ma koy blâmer ci dara. lu lu ne na jàppale magam laa. sentir na may ko. sens. waaw parce que coow li dafa bëri trop. dañu gis keroog mu bëree daan. ñëpp ni Siteu la de Guiers numéro 2 mooy combat bi. loolu ak ci na si yow. waaw yegg si na ci man parce que xam nga tamit supporter bëgg-bëggam rek lay wax. ba ci amateur sax ñu ngi koy wax. waaw moo tax waaw ñoom ñëpp seen bëgg-bëgg la ñuy wax tey mënuma concevoir que ci yow kii daan ba pare. Hmm. nga naan ko wàccal nga dem bari jekke hmm. il faut nga jéem ko yëkkati. Hmm. ne ko demal nga bëri jéem a bëri jeeg say mag. e c'est normal. c'est normal ñu ne Siteu jógal demal nga jéem a tëkku ci la de guerre wala demal nga bëri jeeg c'est c'est bien bon. ñun bañ ci tollee ñun tam dañ doon wax ne nañ jox ci kaw. ko pourquoi pas Siteu warul mën a nañ lay ma jox ci kaw. d'accord na. Mhm. wallaay d' accord na. kon bu la promoteur seet won tay tey bëgg sa combat ci te paré nga pour jël avance bi. nañ baye ba yegg ci yegg guñ ci. Ah, mais mën ci egg nak nag. yegg guñ ci. Mm. dinañ xam ndax am bëgg na wala bëgguma mais moment bi pour l'instant pour l'instant bi ni nañ baye ci Siteu fété combat am. non mi ngi fété nak non semaine bi jàll na. de loolu déedéet yow. ah delluwaat na États-Unis pour préparer. wa bobu dafa dem séti soxna sa nag yow tamit. <laughs> Ah, ya baye yoy ba da lan wax ci choono eh, waxuma la loolu de <laughs> dama é ci taw waxuma loolu de <laughs> dama ne ko rek da ngaa seeti si. Ah, waaw waaw mu ngi noonu. mais ak lu ci mën de xew daal àdduna daal ñu diggante Lac de Guiers ak ki nga xamante ne bii mooy euh, Siteu ndax Lac de Guiers 2 ci xale yi di leen may chance kon dina ci boole même bu Siteu laal bu Siteu woon. bu Siteu woon dina am yéene may ko. parce que sa façon de parler. voilà nit da tuuti. da ngay am yar mhm. mhm. mais nag dafa am loo xam dafa am. Mhm. comme sama rakk la. yéene naa ko. ah waaw pourquoi pas moom munul jéem a yërnduwaale guy gi tuuti. waaw guy gi yéen Eumeu Sène moo ko teree nelaw. ah guy gi ne Eumeu a sa kàddu Samba Xoyaan. bi dafa ah, ñaan guy gi ay loolu góor fit. Eh. demal rek eh, Eumeu Sène eh, guy gi jox ko laal laal looy daw. ko sansam waaw. ah jaag na de. ah mais guy gi day simple waate. ah mais lu gars gis. bu ah. seen jëlee dinañ ko waaye waaye waaye guy gi guy gi moom daanaa la nañu waxante dëgg. Mhm. tànkam yooyu mel ni midi et demi. Eh. <laughs> tànk <laughs> moom daf ma sonal. waaye na am na lu ma wax am na lu ma wax waaye ma dama koy delloo tànk yooyu mel ni midi et demi eh. boo ma bàyyiwul. <laughs> mooy allah daal mais ëmb seen waa bee bu ñu nee grand contre petit kay. Ah, am ma seen dem na na na na dàq différence bi. waaw na taalal loxo guy waaw muy grand rek. waaw léegi waaw na def noonu. Euh. man d' accord euh, na. na na ma seen d' accord pour may guy licence. Euh. bu ko defee rek ma duñ sax teg baat. non si dama am amur pour pour pour may ko. waaw. waaw mais nag yaa ngi am amour di may ko nga xam te ne bii oh tarkindaa bi. waaw yàlla min bi ñu ne mooy borom dëkk bi. billaay borom dëkk bi. bu jigee li koy topp. yaa ne dëkk bi damay kontaan damay xam damay xam ne borom dëkk bi la quoi. <laughs> non dëgg la borom dëkk bi la. waaw waaw. borom dëkk bi la borom dëkk bi def ci dëkk bi. Mm-hmm. mais gis nga Siteu bi nga xamoon. bi doon bëreeg guy gi ak keneen ak keneen par rapport ak bi ñëw keroog euh, digganteem ak Papa Sow changement bi gis nga ko. waaw expérience bi yokku na. expérience bi yokku na. Mm-hmm. mental bi. Mm-hmm. xam la waaw delluwaat na ci ay mbokkam. te dañ na dañ na nit mbokkam. waaw man moom ci côté séeréer yi moom. macha allah mention spéciale. gars yi gars yi am na fu ñu ko teg. waaw te loolu dama koy rafet lu baax a baax a baax. ñëw na gars yi accueillir nañ ko. maa ngi nuyuwaale mbër yooyu nga xam ñoo ko jàppale ci combat bi. mu nekk loo xam mu nekk lu rafet naka ah, vraiment mu nekk lu rafet loo xamante ne tey. noonu la boo amee sa mbokk da nga koy da koy ñuuxu. te si te def na lu rafet. dem ba jon waa di fa contact ak ñoom. vraiment mansion spéciale daal ci booy boobu daal waaw. am na solo kon promoteur yi la de guerre ak ki nga xamante ni mooy Siteu moom la àddantuy coow hmm. moom nag pare na pour jox li nga xamante ne bii loxo pour bëreeg moom combat la bi nga xamante ne bii. yéene naa ko yéene naa ko ci xol bi sedd guy. Euh, dem na uti doole mais bu ñëwaatee ndax la dëgg du ba du naan dem na uti doole. Ah, doole <laughs> c'était waxale yow da nga wut doole yow eh madame mang koy nuyu sama goro sama ma états-unis <laughs> mais non c'est normal ma ngi nuyu walé soxna ma di ñaan yalla fen fey bi yalla na ci yalla def barké njabot gu barké moy lool dal vraiment machallah mais per Khadim jaay nena goto goto goto goto ya ndank ndank eh. per Khadim jaay moko wax tembo tembo munuma ci nena dal consal ndànk ndànk am na ku mu ko waxoon. waaw waxoon na ko kooku doon <laughs> <laughs> na solo mi ngi noonu entre parenthèse woon ci li nga xam te bi moo concerné Siteu ak ki nga xam te mooy Lac de di nuyuwaale tamit waa Casacé. waaw parce fekk avant may commencé sax daaj nga commencé di naan. waaw parce que euh, euh, gis nga ndox mi. Mhm. nekk ndox bu ma estimé. ndox bu ma bëgg. Mhm. benn da nga ne Casamance ñun waa Casamance lañ. Mhm. te mu nekk ndox bu set bu la da ngay xol ni sax da ngay seen sa baram ci ginnaw nga xam ndax set gi mu set kon donc man lepp lu may def rek muy entraînement lepp ci lepp lu may yëngatu ndox mu ngi sama loxo gisoo dafa ñew dafa yegg si rek ma téye ci benn goutte bidon commencé di nan parce que gëmeewuma ko waaw bu timé ndox bi ni diko ko la bok mu nekk ci biir entraînement am diko nan amna lu muy yëg lu bokku ak lim daan yëg waaw sportif deug deug deug boy nan na nga nan li nga xamantene bu duggé sa biir yaa ngi dégg na nekk loo xamante ne lu set mooy dugg sa biir. Mm-hmm. te ndox Casa c'est moom beneen affaire la. waaw macha allah di wax sama mbokk mbër yi nañ ko essayé ñam ñu xool. Mm-hmm. waaw képp kuy bëggee Lac de Guiers dina essayé ndox Casa c'est du waxantu nag. Mm. ndox bi macha allah. lu leer laa la wax. ndewooy ndewooy ndewooy say maane ndewooy alaykati kaam mangala yaara njaay